mbokki julit yi mbokki talibé yi min allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh noo len di nuyu di len siyaara sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala di yeesal sunu talibé ak sunu jébbalu ak sunu cofeel ak sunu mbeugel ci maulana abdullah wa khadim rasulih sëriñ tuba khadim rasul ñu del si waat tay jii ni ñu ko baaxoo defee ci bis bu ne semaine bu ne weer wu ne mu jëm ci wàllu weer wi parce que ci waxtaan ak yéen ndax tay la séntu bu njëkk ñi séntu weeru tabaski muy sel xijja tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sil xeqadati muy weeru diggu tabaski ku ne miin nañu weer wi nag nekk calendrier boo xam ne sunu boroom moo ko fi teg wax ne yéen nit ñi dee leen ci nat seeni waxtu kon weer wi mooy calendrier donte calendrier yu bari la calendrier yi am ci àdduna bi bari nañ lool ëpp nañ ñeen fukki calendrier ndax réew bu nekk ak nañuy calculer ñoom seen calendrier mais calendrier bi nga xam dafa matale mooy weer wi mooy calendrier bi gën a mat ci calendrier yi <coughs> te yàlla wax ne mooy seen calendrier mooy mooy seen nattukaay ñu mën cee xamee waxtu yi bis yi semaine yi weer yi at yi waaw wa si jaxal sam sa diyaan wal xamana nuuran wa xadarahu manaasi la kooku ci weer wi la dellu li taalamu adada sinin wal xisaab maa xalaq la zalik illa bil xaq fasilul ayaati li qawmi yaqiluun kon weer wi mooy calendrier wa jaxal naa layla wan nahaari ayatayni fa maxoon naa ayata layli wa jaxal naa ayata nahaari mubsiratan li tabtaqu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سن برام وخاني والخمر قدرناه منازل حتى حاد كالحرجون الخدي وير وي يالا دكو ووتال جروم ñetti tolluwaay yu muy aki ak i melokaanam tàmbalee ko ci xilaal tàmbalee ko ci euh, al aadam al mutasaayib jaar ci badru jaar ci al aadam al mutanaqis jaar ci al xilaalu saani jaar ci al muhaq ba soo ko wàññi juróom-ñetti étape la bu ci nekk situation bi mu toll ci buy door a fee ñu ko tudd ko xilaal muy terute tuuti lool <clears throat> li ñëw ci moom ci leeru jant bi di tuuti bu demee ba juróom-ñaari fan dugg ci li ñu tudde al aadab al mutasayid mooy lan bu ñu xaajee suuf si ñeenti xaaj wër na benn xaaj étape yooyu boo koy topp juróom-ñetti étape la ba buy dem ci étape mujjeel ba mooy muhaq xatta xaada kal xurjoonil xaddiimi mel ni carub tàndarma noonu mu def sew bi doo rafet noonu mu tàmbale woon su demee ba ci ñaar suba ñaar juróom ñaar ci penku bi noonu lay tuutee di tuuti di tuuti ba bët mënatu koo gis mu dab jant bi sës ko rik kenn dootu ko gis ba ci ñaar ko juróom-ñeent ñu war ko séentu jant bi so jant bi romb ko tuuti cat li di feeñ leeraay bi jàpp cat li ñu séen ko tudde ko alxilaal ndax weer wuy door a feeñ day sori jant bi tuuti sori googu mu koy sori ba gis day yokk di ko sori di ko sori di ko sori bu ko soree nag ba xaajal wër gi ñu wër suuf si muy bisu fukk ak ñeent wala bisu fukk ak juróom nag day tàmbaliwaat di jegewaat jant bi chaque jour leer leer bi day jàkkaroo jant bi bu koy jegewaat di ko jegewaat ba jege ko ci sept degré weer yi bët mënatu ko gis leeru jant bi day daal di mëdd leeru weer bi bët dootu ko gis mooy bu suba ñaar ko juróom-ñaar rombee bët dootu gis weer wi ndax jege gi mu jege jant bi suñu xëyee ñaar ko juróom-ñett dem ñaar ko juróom-ñeent benn mos jant bi njëkk ko weeru njëkk koo tuuti wala jant bi njëkk koo so tuuti bu ko jant bi njëkkee tuuti nag nga xam ne bàyyi na ko ginnaaw ba càll di feeñ ñu séentu ko man koo gis léegi nag bàyyi gi ko jant bi bàyyi diggante bi mu ko bàyyee fi koy séentoo foofu la mbir mi nekk bu fekkee jant bi da koo teel a bàyyi kon day day am day day xaw a rëy bu ñu koy séentu séentu bu njëkk dañ koy gis bu fekkee jëne da koy yeex a bàyyi ci ngoonu ñaar ko juróom-ñett ndax juróom-ñett état bi weer woowu weer wi dafa amaan ñaar fukki wàccuwaay ak juróom-ñett ñu tudde ko ay manasil man la bu nekk genn guddi la cay fanaan loolu moom ni nga mën a xam ñaar fukki la ak juróom-ñett mooy ñaar fukki wàccuwaay ñaar fukki tolluwaay ak juróom-ñett yoo xam ne weer wi dana ko traversé ngoonu ñaar ko juróom-ñett nag ci la jeexal manaasil yooyu léegi day judd foofu lay sësa jant bi rikk ba dara dootu ko mën a gis ngoonu ñaar ko juróom-ñett léegi après jant bi da koy bàyyi léegi bàyyi boo ko jant bi bàyyi nag ci benn mu teel mu teel koo bàyyi baa mu yéex ko bàyyi bu fekkee da koo bàyyi avant ñuy julli takkusaan waaye teel a ñaar ko juróom-ñett matal na man si la yooyu jant bi tel ko bayyi suñu fanane guddi ñaar ko juroom ñeen xaliss bu di ñaar ko juroom ñeen ba ci ngoon day fekk weer yi biko jant bi bayyi ak biñ koy sentu amna ñaar fukki waxtu ak juróom boobaa weer yi day rëy limi jël ci leer jant bi day bari dañ koy man gis mu leer nañ ñi bu fekkee da ko bàyyi avant ñuy ko saan wala mu bàyyi ko ginnaaw takkusaan wala mu bàyyi ko avant ñuy julli timis wala ginaaw timis wala côté gee wala euh, jëm non ba côté 23 heures japp minuit guddi boobu fu fu jant bi baye rek suñu fanane ba xëy ba yendu ba ngoonaat li weer yi day am ci ay waxtu day yaat weer yi day reuy day leer digënde ma jant bi day am espace motax lolu moy tax ñukay mëna gis ci seen dugu ñëk bu fekke jant da ko yeex a nak nga xane dem nañ ba téle ngonu ñaar ko juroom ñatt julli nañ takkusaan julli nañ timis julli nañ gee minuit jotna 2h 3h gis bu xasse ak 3 jangan jant bi door ko bayyi la ko tamlé 3 heures gogu ba ñu xëss bi di ñaar ko juroom ñent ba ca ngoon bis bop kenn mëna gis wédu ak bëtt suba machine mo fi machine ci mirum nasiya la bok lol tamit ni japp ne wéri mën na saxé ci machine dañu jangut sa buñu ko ci machine dañuy delu ci alquran don téré moy inama nasiyu siyada don fil kufri té lolu mom la arabie saoudite ak naar yi di jëfandikoo ba tey te yàlla tere woon na leen ko ca démb at mi saa boo xoolee weer yi nga xam ne machine mën na koo gis boo ko wàññee at mi du mat boo ci sukkandikoo at mi du mat trois cent soixante quatre jours yi trois cent cinquante quatre jours yi wala cent cinquante cinq jours day manqué kon ñi naan dañuy sukkandiku ci machine dañoo wérut maanaam jànguñu fukki weer ak ñaar weer yi ci machine mën a gis télescope buñ ko wàññee ñaari weer képp ci du mën a gis léeg-léeg wala benn weer te loolu boo ko boolee at mi ñaaree maanaam mu ëpp baa mu manqué te day manki sax taat moom mënta manki loolu mooy problème bi moo tax gis-gisu bët la charia jàngale a ruyatu sarxiya bu fekkee dañuy séentoo ay machine ay jumtukaay fukki weer ak ñaar la weer yi jumtukaay mënta gis suma léeg-léeg benn weer lay doon léeg ñaari weer loolu nag boo ko boo ci sukkandikoo at mi day manqué trois cent cinquante trois jours ngay am wala trois cent cinquante deux jours te loolu mun te nekk weer yi moom ñaar rek la mën a nekk trois cent cinquante quatre trois cent cinquante cinq comme calendrier jant bi trois cent soixante cinq trois cent soixante six loolu moom du sens moo tax ñi naan dañuy sukkandikoo foofu dañoo jàngul man dama koy topp bu at mi deewatee tàmbali leen ngeen xool réewi naar yi weer yi ñu sukkandiku ñoom ci wàllu gis-gisu machine soo ko wàññee at mi day manqué te loolu mooy inna man nasi yu siyaada dun fil kufri yàlla da ko doon tere démb ndax naar yi kat ñoo ko doon jëfandikoo démb yàlla ñëw tere leen ko dañ cee dellusiwaat te ñoom yëgul ne dellusiwaat nañ ci loolu danaa ñëw ci kanam tuuti ci leeral ko léegi nag gis-gisu sharia mooy li sharia mën a maye ngir bët mën koo gis loolu am na lu ci xam-xam jàngale wax nañ ko ay yoon moo tax mu ne jant bi bàyyi bi mu bàyyi weer wi ci ngoonu ñaar ko juróom-ñett bu ko yeexee bàyyi nga xam ne côté trois heures tuuti la ko bàyyi bisu ñaar ko juróom-ñeent ba kenn du mën a gis weer wi ak bët machine fi sës te boo dee sukkandiku ci machine at mi day manqué ndax weer yëpp la machine mën a gis ba mu des benn weer léeg-léeg léeg-léeg ngeen gaa bari ñaari weer kon fofu mom fermé wul waye fekkente jand bi da koo teel a bàyyi maam dafa téla judd ci ngonu ñaar ko juroom ñet ndax ngonu ñaar ko juroom ñet bu nek wér mom lay judd wér bay dee wér judd ndax ci la matal ñaar man sala ak juroom ñet man sala mom ñaar ko juroom ñet képp la weer yi sala bu nek genn guddi la cay fanaan moo bu ne suba ñaar ko juroom ñet guddi gogu moy guddi gi weer yu mujj fanan ci man sala bu xëy day tàmbaliwaat saa bu ñu demee ngoonu ñaar ko juróom ñett jëm guddi ñaar ko juróom ñeent weer yi dugg na ci beneen mansi la bu bees jeexal na ñaar ko juróom ñett yi tàmbaliwaat na ko loolu neex a xam la nekkul lu sori bu neetele ñaar fukki fan ak juróom ñett ngoon googu balaa jant bee so wala ginnaaw timis wala ba minuit wala ba trois heures weer dana judd jeexal ñaar ci mansil ak juróom-ñett tàmbaliwaat benn mansil première mansil bu dee jant bi nag mansil bu nekk fukki fan ak ñett la cay def bam mu man mansil al jabha al jabha rek la jant bi am fukki fan ak ñeent nga boole ko muy 365 suur yu tegal juróom benn waxtu suñu doxee ñeenti at nga bol ndax ñeenti juróom benn waxtu lañ mooy ñaar ko ñett ñaar ko ñeent matu bis ñu teg ko ci février muy ñaar fan ak juróom-ñett juróom-ñeent moo tax février ñetti at yëpp vingt lay doon ba ko ñeenteel mu nekk vingt neuf at mi complété di trois cent soixante six jours souvent day ma trois cent soixante cinq jours la tëddee kon tey la euh, aljuma tey la aljuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sil xeqdati muy weeru diggu tabaski di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom 1445 ci gàddaay gi bi at ñu tàmbalee ak léegi ca ba ja 19 juillet ba fii may waxee ak yow di la 7 juin 2000 ndax 10 ba 19 juillet la doon benn fan ci weeru xarit di juróomi fan ci weeru biir muy muy muy muy muy yóoli yoo la donon ben fan ci tam xare alar ba 19 juillet fukki fan ak juróom-ñett ci wéru juillet mo donon ben fan ci wéru tam xare di juróomi fan ci wéru biir ñu koy tuddé yóoli yoo ci ñu ko ma ñu tuddé ba fi ma tok di wax ak yeen di ñaar fukk ak juróom ñent ci wéru digu tebeski 1445 di la 7 juin 2024 tey la 325 jours tey la 325 jours kon 30 jours rek moo ci des waaw 325 jours lu ci des 30 jours muy 355 jours tey calendrier bi dafay mat lim doon waaw dafay mat lim doon ngeen bàyyi xel loolu. tay la ñetti téeméeri bis ak juróom ak ñaar ko juróom bi at mi tàmbalee ak léegi waaw tey 325 cent tek jours teg ci 30 jours moo tax weeru tabaski bi day mat fanweer nga teg ko ci at mi mat sëkk bu dee ne ñi tàmbali tey benn fan muy naar yeeg leen wër ñoom seen atum na mi day manqué te wër te manqué foofu la problème bi ne parce que yii xam-xam la du ay baatin du ay xalaat du du ay secret calendrier bu leer nañ la yàlla rëdd tracé teg ko fi bind suuf si bind weer wi bind jant bi dara du ci rate maa tara fi xalqi rahmaani min tafawutin du am wuute de nit ñooy am ay wuute ci ñoom seen jëmi bopp ngir économie wala ngir ay dirigeant wala ngir ay ONC mais bu dee weer yi moom loolu leen ci ni suuf si doxeek weer ak jant bi amul njuumte nit ñi ñoo am ay njuumte ñoom tey la 325 cent di ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru diggu tabaski atum 1445 di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru biir muy maayoo kon fanweeri bis moo des ci at mi nga teg ko ci muy trois cent cinquante cinq jours at mi noot ren day mat sëkk ndax calendrier weer yi moom trois cent cinquante quatre trois cent cinquante cinq dong la ren nag trois cent cinquante cinq day mat sëkk nii la tëdd waaw deux mille vingt la matoon tey lay mataat ngeen bàyyi ko xel kon tey la 7 juin 2024 ci calendrier jant bi mooy calendrier miladiya li ñu tudde juddu yonte yàlla Iisaa tey tey jii tamit la fanweeri fan ci weeru basans muy calendrier coptiye mooy alxaptiye al misri bu njëkk ga tey la fanweeri fan moom tey lay yem suba le 8 août di benn fan ci weeru tabaski mooy doon benn fan ci weeru bukk na ci calendrier coptier ba tey muy ndax ñu ngi ci mille sept cent quarante et ci calendrier xabtiya moo fi jiitu calendrier yi calendrier xabtiya ma doore ci atum ndudati ma nga doore ci euh, euh, atum quatre mille deux cent quarante sept asanatal foofu la doore ay wéram fukki wéra ñatt la ndax li tax mu doon fukki wéra ñatt wa wa wa ñu tudde wa Éthiopie ñom ñoo dag weer wi jël weeru mujju muy décembre dag ci juroom benn fan def ko weer muy fukki wéra ñatt ci ñom mais ba ba ci loolu amul fukki wéra ñaar kep lon comme ni calendrier yi doon boba ndax euh euh ñu tuddati ndax li di euh, Yanus ba nga xam mo moo tàmbaloon nguuram deux nga xam ñom dañ ko doon magal ca catholique bu ñëk ga at nañ ko tàmbalee màggal xam nga naan rey nit ñi pour màggal pour feete ko dañu reyoon huit mille quarante mille personnes juróom-ñetti euh, junni ak euh, nu tuddati huit mille quarante huit cent quarante mille personnes juróom-ñetti téeméeri junni nit ak ñeent fukki junni nit la reyoon pour màggal at mi feetu ci moom bi mi falu buur ndax calendrier euh, euh, xabti bi ñu ngi ko jëlee ci deux cent quatre mille deux cent quarante sept xablal miilaat mooy njëkk calendrier jant bi njëkk juddu njëkk juddu yonent yàlla Isaa comme ñoom tamit seen weer muy weeru basans wi tey la fan weer suba la weeru bu na di tàmbali moom tamit fanweer lay doon nii la calendrier yi tëddee calendrier yi bari nañ bari goo xam ne maanaam boo ko doon lim doo fi jóge ndax bari gum bari waaw ñu bëri fi mu ne du calendrier bi rek nag calendrier yi bëri nañ bu dee ñun calendrier bi ñu nekk ni muy calendrier jullit ñi tey la fanwe ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru diggu Tabaski 1445 quatre tey la bu dee calendrier jant bi ñu ngi ci 2024 mille tey la 7 juin deux mille bu dee amazigh yoon ñu ngi ci 2974 ñom ci seen calendrier pour wala calendrier ni ñu bare euh nga xamne ñoom euh euh bu dé euh, ndax ñoom dañuy calcul ci seen nguuru romain yu ñëk ya armée ñu yoni am nañ calendrier ñom ñi ci 1473 année suryani ñi ci 6774 année ci ñom ben bangali ñi ci mille quatre cent trente et un bu aussi ñu ngi ci deux mille cinq cent soixante huit année bisante ni ñu ngi ci sept mille cinq cent trente deux calendrier discours euh, euh, discours di ñoom tamit seen calendrier trois mille cent quatre vingt dix éthiopiens yi ñu ngi ci ñoom ñoom ñoom ñoom seen carnet dafa yeex dafa ñu ci deux mille diggante deux mille ak deux mille ñoom seen carnet dafa waaw kaal ñoom tamit seen calendrier calendrier yi su ma ko doon lim ba ko lim fii ba mii di du jeex ndax bari waaw ku ne ak seen calendrier yi ñu tëgg mais calendrier yooyu yëpp dafa am njuumte benn calendrier rek moo amul njuumte muy weer wi ba ci calendrier bi ñu tënk ci jant bi nga xam ne sëñ yóolu yoo moo ko tënk ñu ci sukkandiku tey dafa am jumt giri góor yi dafa am njuumte calendrier yëpp am jumt ba mu des benn calendrier mooy bi yàlla taxawal moo taxoon moo wax ne inna xidata soore hindillaahi isna asara saaran fii kitaabillaahi maxala sama wala min ne arbaatu xorum dalika diinul qayim fala taslimu fii na an suko xaatul muslimin kaafatan kamay xaatoonbu mu ana laa maxal mu taqin lu mu ca teg inna man nasiyu سيادة في الكفر يدل به لسكر يهلنا عاما ويعرمون حاما ليواتوا حين ما حرم الله إلى آخر الآية kon da ngay seet benn calendrier rek moo jub mooy bu weer wi te mooy ñun bi amee ñun jullit ñi pourquoi nag duñ ci mën a sukkandiku ndax calendrier yi fi yim yëpp dafa am problème waaw ñu ci yoga ñu ngi ci cinq euh, cinq mille cent vingt cinq josti ñu ngi ci cent ba ci calendrier coréen yi amul benn calendrier boo doon lim ëpp nag cinquante calendrier benn ci jubut yépp am jumti waaw yépp amul ci benn ba amul njuumte calendrier sinien yeeg gisan sinien yeeg gorma yeeg bosidi yone yeeg britanien yeeg surtout syrianien yeeg yëpp dafa am njuumte benn calendrier moo amul njuumte mooy bu weer wi képp moo amul njuumte waaye ñetti calendrier ñeenti calendrier yi gën a fis mooy calendrier weer wi ñuy wax ak calendrier jant bi mooy bi ñu wàññi ci yonte Yàlla Isa bi mu juddoo ak léegi ak ba ko jiitu muy alxabtiya muy misiriyoonu yi te tàmbali euh, quatre euh, ci yooyu ca euh, daq yanus ca calendrier moom xam nga xablal miilaat maanaam njëkk ñu tàmbali wàññi calendrier jant bi boobu moo moo ci gën a siiw waaw ndax ñu ko ñu ko dagg ca atum ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom njëkk ñuy judd yonent Yàlla Isaa ci buur ndax li bi mu faloo ci atum deux cent te rayoon juróom téeméeri junni nit ñi junni ya ñu date foofu ñoom nii nii la la tëddee mais calendrier xam moom tey moom seen ñoom seen weer tey la tey ñu ngi ci weeru besans te la ca trente jours jeex na suba la bu na di tàmbali muy le huit suñu ñoom seen weer weer wu nekk seen weer yëpp trente la juróom benn fan yi ñu ci daggee ak juróomi fan ci weeru décembre lañ def aw weer muy fukk ak weer ñett mais soo ko yëpp ba tey trois cent soixante cinq la day jox ba trois cent soixante six mu tolloo ak calendrier juddu yonent Yàlla Isaa bii ñu sukkandiku tey muy ñoom janvier février euh, euh, mars mais mai avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre moo calendrier xabte bi ñoo dëppoo rek ñee dañoo dagg dañoo jël aw weer def ko ko ñett def ko juróom juróomi fan léeg-léeg wala ñu ko juróom benn comme ni calendrier jant bi doxe voilà grégorien yi la même chose tey jii tamit ci calendrier horoscope yi ñu ngi ci mille quatre cent trois muy ñoom bélier ñoom taureau ñoom vierge ñoom baleine man ko poisson ñoom lion ñoom euh, euh, euh, ndulati vierge et cetera moom mi fukki biddiw yi ak ñaar muy horoscope yooyu ñoom ci atum mille quatre cent trois ci la ñuy ci calendrier bu ba tey moo topp horoscope yi ndax amul benn horoscope boo xam ne tàmbali ci catu weer ci calendrier jant bi di yem ci catu weer déedéet yi dañuy tàmbali euh, comme 21 mars 19 avril xeet yooyu nag noonu la tàmbalee ñoom calendrier yooyu ñi tey la ñu ngi ci atum 1403 bu dee calendrier jullit ñi muy weer yi mi ngi ci 1445 bu dee calendrier jant bi mooy atum tubaab mi mi ngi ci 2024 bu dee calendrier capte yi mooy euh, alxabtiyuun yi mooy misriyuun yu njëkk ya ñoom ñu ngi ci mille mille sept cent quarante et un teel seen fanweeri fan seen weeru descente tey la yam si ci ne tey la séntu bu njëkk tey jii la weer wi di feeñ bu jant bi sowee tey la ñetti téeméeri bis ak ñaar fukk ak juróom fanweeri bis moo teem ma trois cent cinquante cinq jours mooy weer wi ñu jëm kon fu waaye gis weer yi nga jottali ko li ma doon wax nag maanaam bu fekkente ne ñu dañoo bëgg a sukkandiku ci ay gis-gisu appareil moom at mi dootul mat mukk te loolu mooy la yàlla tere woon te at mi su dee su dee manqué suñ doxee at teg lu bari mooy la la la la la jaaxil yoonu yi yéefari màkka yi ak ak arab yëpp bu njëkk lañ doon def ba yàlla duut ci baaraam ne leen baleen ko inaman nasin siyadan fil kufri ndax suñu demee juróom-ñaari at day tegal juróom-ñaari weer wala juróom-benn weer suñu demee juróom-ñeenti mu tegal mujj at yi di ëpp di jaxasoo bu la neexee wàññi weer yi doole ci wee bu la neexee yokk weer yi la ci weer loolu problème lay indi bo moom la moom la naar yi def ba léegi mooy jël ay appareil di ci sukkandiku at mi di manqué loolu at mi manqué nag bis yooyu bu yàggee day doon ay weer bu yàggee doon ay at mu indi beneen jaxas kon nasiye ba yàlla doon tere ba léegi naar yi moom la ñuy jëfandikoo Arabie Saoudite Émirats Égypte réewi naar yëpp moom la ñuy jëfandikoo ba mu des Maroc ba mu des Saltano Oman ba mu des Paranavie bu dul réew yi mu tudd rek nasiye bi ba tey ñu ngi ko def ñoom na appareil yooyu ñuy sukkandiku bis bu neetee la benn tam xarit nga yor sa këy yor sa big di xool weer yi nga xam ne moom la appareil mën a gis boo ko wàññee benn weer ciy manqué moo ci moo ciy mat weer bi sit day nekk ñaar ko juróom-ñeent su waa kon at mi dootul mat da ngay am ay 352 jours 353 sur ngeen ngaa bari at mi day manqué bis léeg-léeg manqué ñaari bis loolu moom doxul ko koy wax moom loolu du xam-xam weer ci bët lay sax léegi nag démb di la euh, six juin réewi naar yi doon seentu weeru yëpp démb kenn gisu ko kenn gisu ko kenn dañoo dañoo dañoo xaatim rek cour suprême ndax Arabie Saoudite ñoom aj màkk gi maanaam dara dat bi ko jàpp dara du ko sens dat bii ñu ko def nii daaw lañ ko jàppoon gis nga aj màkk déwén deux mille vingt cinq pare nañ ci ñoom amuñ problème mu weer amuñ ay problème mu xam-xam yi déedéet décision lañu jël démb dañoo jël décision démb ñoom bi ñu séntu Arabie Saoudite am na fukki séntukaayu weer yi ci gën a mag yëpp mooy xoota asudir ak tumir ñooy séntukaay yi gën a mag te démb séntukaay yooyu yëpp nga xam ne dañ faa samp ay machine ay télescope caméra LCCD yooyu gouvernement bi leen leen amul ci benn séntukaayu weer nga xam ne séntukaayu weer yëpp astronomie yëpp dañuy teew télé yi teew ministère yebal ay ndaw ñu jël seeni appareil dëpp ko ci jaww ji dëpp ko fi weer wi di so ak jant bi di ko foto deux cent photo amul benn séntukaay bu ko gis ci Arabie Saoudite du benn séntukaay ba ci séntukaay bi gën a mag mooy xooti assudir boobu sax gisuñu weer wi atumir gisuñu weer yi Abdoulaye Al Khodeiri yi nga xam ne mooy fi mu nekk mooy fi ñu gën a dooleel jokkal ko ay machine ak i appareil sax moom démb gisul weer ndax démb Arabie Saoudite gépp dafa xiin ba ñuul te li ci gën a yee mooy weer yu démb amul leeraay bu ñu ko mën a gis amul benn leeraay bu xam saxal bu ñu ko mën a gis te réew yëpp ñoo d'accordoon tënk woo borom xam-xam yëpp ñu seet ba xam ne weer yi bu melee nii bët mën na koo gis su melee nii bët mënu koo gis su melee nii appareil mën na koo gis su melee nii appareil mënu koo gis démb loolu lépp la xam-xam dàq. démb appareil sa mënut gis weer ba bët ko gis ara démb seen seen séentukaay yépp joxe nañ décret wané na gisuñu weer fukki seen séentukaay yi Arabie Saoudite am dama ya ci xam bok nga xam ne mooy gën a mag ci Arabie Saoudite démb kenn gisuñu weer ak li ñor ci matériel yépp imaratul xarabiya ni ñuy al khatmul malaki nga xam ben telescope télescope mag la buñ sa buñ fa sam moy bi gëna a mag ci jamono ji ci aduna bi gën a gën a gën a garaaw ñoom démb ñoo ko waxal seen bopp sax comme neex ma ngaa dem markasul falek addu wali centre international dem bi nga xam ne addu bépp ku séq dem dem fa nga xool ko ñoom ñoo wax ne démb séntu nañ ba sonn gis nañ planète mercure gis nañ planète Vénus mais gisuñu weer wi te fi weer wi doon so ñoom photo nañ ko ñaari téeméeri photo ci machine boobu ngir bëgg koo mën a gis te gisuñu nga xam ne ñëpp lu ñu doon xaar mooy décret cour suprême bu Arabie Saoudite génn démb Arabie Saoudite décret cour suprême rek ci la ñëpp sukkandiku mais du gis weer démb kenn amul kenn ku mën a génne ab image ci weer ci àdduna bi amul léegi séntukaay yooyu nga xam ne fukki séntukaay la nag ci Arabie Saoudite bi ñu waxee ne gisuñu weer wi nga xam ne weer wi suux na gisuñ ko ñoom bañ joxe dekkee ne gisuñ ko yooyu ñëpp yéen ko doon topp dañoo wax ne kon léegi ñu ngi xaar ad diwaanul malaki mooy famille royale bi ban décret la ñuy joxe wala ku neex man ngaa dem ci site internet yu Arabie Saoudite yëpp nga gëstu lu yomb la ñoom ñoo xam ne séentu nañ ko ci fukki syndicat yëpp gisuñu léegi ñi ngi xaar ak diwaanul malaki yi mooy famille royale bi ñu ko séq ba xam na ne ñoo ba ñu toogee lu ma trente minutes jàpp quarante minutes benn waay moo ne gis na weer yi ci barab bi ñu tuddee xar nga ne boo fekk na weer yu génn Arabie Saoudite man bi ñu toogee di xaar laa ne li tax duñ def déclaration mooy ay pexe la ñu wut mooy foog ñu fabriquer dara ci lañ fabriquer benn waaye mu ne moo gis weer wi ca alxariq ci loo xam ne si mënu koo gis ci loo xam ne yow bi nga koy wax weer yi génn Arabie bu am lu ëpp trente minutes jàpp quarante minutes moom moom tam bi ñu nee ma wax loolu Arabie Saoudite toogaa na lu ma deux heures de temps door a joxe décret ñoom aj gi ni ñu ko tëralee dara du ko léegi ci décret Arabie Saoudite boobu na ci la réew yëpp sukkandiku égyptien égypte ñoom tamit gisuñu weer dañoo sukkandiku ci li ñu wax ne waa ji gis na ko ci alxariq benn seere gis na ko ci alxariq barab bi ñu tuddee alxariq ci Arabie Saoudite même ñu nekk biir Arabie Saoudite loolu moo leen jaaxal mooy li am Sénégal léeg rek ñaan ñu ni tuddal gox yoo xam ne mosoo koo dégg loolu moo am Arabie Saoudite suñu naree def étape la gox boo xam ne yow kenn nga ko man gox a dégg ci naar yi yëpp loolu moo leen jaaxal tey lañ ko mos a dégg alxarir fan la ci Arabie Saoudite comme ni ñu ko defee fi Sénégal rek sama mbokki ñoom Omar Sall jékki-jékki rek wax benn gox nga xam gox boobu kay nga koy dóor a dégg Sénégal noonu la amee Arabie Saoudite léegi ci xibaar boobu ci la maanaam coalition bi yor wàllu weer égyptien yi ñoom fa lañ sukkandiku joxe décret Arabie Saoudite joxe décret réewi naar yëpp topp leen ci lool waaye démb kenn gisul weeru du ci appareil du ci bët ndax appareil yoon de moom ñëpp séntu nañ gisuñ dara ba wane ne gisuñu ba weeri suux ñu toogaat lu mat weeri suux mooy weeri sona ñu toogaat lu mat trente minutes lañ door a tàmbalee sànni information yi ndànk nag naan am na waay ju ko gis alxariq ñu toogaat deux de temps cour suprême door a génne décret ne benn fan muy tey ji ci ñoom ñu la tëdd de waaye loolu ñoom du seen problème naa la ñoom amuñ ñoom fula la ñoom dañuy gëm la ñuy gëm nekk ca ñu ñii kay ñooy ñàkk fulu ak nit ñi ak yeneen réew yi Arabie Saoudite bépp réew bu gis weer loolu yoonam nekku ci moom du lijjanti kenn moom boppam la lijjanti réew yëpp nag foofu lañu waroon a nekk kon loolu ñoom fula la ci ñoom ñoom duñ topp benn réew ci weer dégluwuñ kenn ci aw weer ñoom seen bopp rek la ñuy lijjanti décision ba buur bi joxe daal mu jaar cour suprême ñoom loolu lañuy ñuy lijjanti aj Makka ak déwén programme ba pare benn bis du ci randu ñoom même seen payoor yi sax nga xam dañuy jël calendrier weer yi di ci fay waa réew mi étranger yi ci leen daan def ci leen leen daan fay nee di dañ ko dindi di leen fay ci calendrier jant bi ndax nee na six jours yi ñu ciy teg maam li li yàqu économie dafa bari ñoom foofu lañu nekk ñoom économie la ñu xool bu ñu organiser aj gi comme déwén deux mille cinq ne bi sàngam lay tam bi sàngam lay yem buñ ci accès si weer yi feeñee ñàkk feeñ seen yu nekku ci danañ fabriquer nag ay nit yu ne gis nañ yi pour mën a ànd ak comme ren man programme bi programme ak gi fi aj gi tàmbali ba fa mu man bima ko xamee ak léegi rek ëpp lu juróom ben weer ñom pare woon nañ ci depuis juróom ben weer ne fi la aj gi tàmbalee fii la yam bis bi moy arafa loo loolu ñeen seen ñu koy bind ci internet bi loolu nit ñee ko bind mais arabie bu ko bindé yag na da ngeen dem ministère ngeen xol ñom bañu bindé bindee ne bi sanga moy arafa bi sanga moy nangam lolu bo ba ëpp lu juróom ben weer ñom pare won nañ ci wéri feñ ñak feñ lolu intéressé wu leen arabie saoudite du rey kenn ci aweer weer réew yi am fulo yëpp tam duñ rey kenn ci aw weer tëdd tey jii la bu njëkk la weer wi di feeñ réew yi tabaski la dix-sept mooy ëpp ñoo ëpp fuuf yi ànd ak arabie saoudite bi mu defee décret décret am bàyyi ko cour suprême nee nañ tey la benn fan la ko réew yu naar yëpp roy Égypte Tunisie Algérie Qatar Koweït bahrain ak seenu xumala yi nga xamne ñoo tassaro ci rew yi ak jakk yi top Arabie Saoudite yëpp ci loolu ci rew yëpp ñom daal and ci loolu waye kenn gisul wer mom waxuma la wer wa nga ne waye seen machine yi ni ñi graw graw mu ñoo génne aw wer amuñ benn photo te barab yi ñu doon seen doon lañ fa door ci ay image ëpp na 200 image waye taxu ñu mëna a wer wi loolu na la ko ba di gisee nga toog bam neex la 30 minutes nga naan ben waye gis na ko xariq toga 2 heures de temps door a jokkoo famille yambe bi ñu jox leen ndigal ñu jaar cour suprême mu joxe décret Sénégal gi da ngay dégg ñu naan nit ñi sëriñ sëriñ si lañu topp waaye topp nit moo gën topp cour suprême bon xoliyaa réewi naar yëpp maxkamul xoliyaa mooy mooy décision ak ku mën a gis weer ak gis ko ñàkkoo gis maxkamul xoliyaa mooy xool la muy moom bu xasee jël dogal ne nangam la ñëpp ci loolu la te ñene nekk ci maxkamul xulyaa nag du maanaam duñu duñu ay borom xam-xam ci diine de dañoo yoré atay rek siise yi di doxal ñom bind kay jël kay tek jël bi rëdd ne nangam war nga lañ xam mais du jàngé dañoo ëpp li ñu xam-xam du jàngé dañoo jàngi diine du jàngee ko maîtriser dédé tribunal lañ ñor loolu bu neexon Sénégal gi ñu def ko jël lepp jëbal ko tribunal mom moy décider lo réew naa ci loolu la wax motax nit ki dafa wara xam weer yi yan condition lay dox weer wi nag saa boo ci juumee dana la ko wan léegi ñoom nee nañ teel seen benn fan ci ajuma ji nañ dox bañ àgg ci fukk ak ñeent tey bu jant bi sowee ginnaaw soo jant bi weeru 77000 lay am 77000 nag mooy weeru benn fan ci bu dee Sénégal ndax Sénégal la weer gën a normal ci côté boobu tey bu jant bi sowee diggante fi jant bi sowee ak fi weer yu sowee 77000 la loolu weeru benn fan la. léegi ñoom comme ñeneen ñoom tey seen benn fan kon tey ngoonu tey mooy seen ñaari guddi weeru ñaari guddi day mat quatre vingt et un ba quatre vingt cinq minutes léegi nag tey moom soixante dix sept minutes ba tey kon njuumte ngi noonu noonu weer wi dina wane njuumte nag noonu leen koy wane ba keroog ñuy àgg ci te ñoom bu ñu nee ba ñettee la si naaf ko juróom-ñett ku xëy suba teel da nga ci penku mu nekkaat beneen njuumte ak bu weer wi xaajal bi mu wër bu wër bi mu xaajal. war ko def fukk ak ñeent ñoom ci seen guddi fukk juróom-benn la koy def te weer du xàcc guddi fukk ak juróom-benn kon weer saa boo ci defee njuumte moom moo la koy wat gis naa fi ay communiqué Sénégal ñu naan weer yi feeñee ci Arabie Saoudite feeñee ci Égypte ñoom xamul sax weer nu mu tëdd foofu kenn gisul weer wi ci àdduna bi kenn photo sax amuñ ko photo Arabie Saoudite ci nii la defee décret mooy fukki séntukaay yi mu am yëpp séntu nañu weer wi gisuñu ko. ñuy toog di xaar famille royale toog nañ xaar leen lu mat 30 minutes jàpp 40 minutes te benn xibaar jugut booba lañ nas lañuy nas ba weer wi weesu arabie saoudite laa wax nga xam ne génn arabie saoudite moom ñoom biñ naan waa ji gis na ko ci alxariq fekk na weer wi génn arabie saoudite lu ëpp 30 minutes jàpp 40 minutes te waaj bi mu ne gis ko tamit décret bi génn fi saas dañ ko bàyyi ci réseaux sociaux yi muy daw pour tiir attention ci nit ñi ngir xibaar bi ñu waaj a joxe ba ñu demaatee ñaari waxtu nag la cour suprême door a génn décret ne weer yi feeñ na benn waaye gis na ko ca xarit nii rek la tëddee de Égypte tamit seen seen commission ci xibaar boobu la sukkandiku mais commission Égypte bi gisuñu weer séntu nañ ko de ak nit ñi waaye kenn gisu ci weer ci Égypte ba Égypte daj xibaar boobu doon ñoom ci lañ sukkandiku ñoom tamit joxe décret ñoom sax bi ñu déggee xibaar bi ñoom ñoo njëkk joxe décret afa Arabie Saoudite Arabie Saoudite door a joxe décret réew yi yëpp doñ ko xaar Imaaraat fa la fa la weer yu njëkk a sobe Imaaraat weer yu dana so ak jant bi ba am waxtu muy door a so màkk te ñoom bi ñu gisuñu de te seen machine boobu ñu yor muy alxatmul malek yi télescope boobu mooy bi ëpp ci télescope ci jamono ji may wax yéen ci àdduna bi bi gën a doy waar ci wàllu séntu weer te ñoom gisuñu weer wi te fi ñu ko doon natt nga xam ne xam nañu weer yi diggante bi la nekk foofu diggante boobu natt maam machine bi telescope bi photo nako 200 photo manam 200 cent images pour bëgg won génn dara gisul dara boo ko weer ma nga dug ministère nga xol ko wala seen site internet yoy nga xol ko ba xam yi la tedd lii nak lu mata xam la pour ngeen bayyi ci xel ba ca dess moy tay la 325 jours ndax admin mi ngi tambali won alarba 19 neuf tey la nan la 7 juin 2024 at mi ma nga tàmbaloon àllarba 19 juin 2023 tey la la 7 juin 2024 soo ko wàññee 325 jours la boo ci tegee 30 jours muy 355 mais boo ci tegee 29 354 lay doon te loolu mun a nekk ren ren at mi day mat sëkk calendrier weer bi day mat calendrier jant bi day mat tey 2024 bi weeru février wi jàll 29 jours la. at mi day mat trois cent soixante six jours même calendrier weer yi ren day mat trois cent cinquante cinq jours loolu dara du ko dindi xam-xam la ki koy wax mën naa nekk nit ku ñuul mën naa waxi wolof du am important ci nit ñi mais dara du ko dindi xam-xam moom du loolu xam-xam du dër bu ñuul du nit ku ñuul du aw làkk dañ koy jàng di ko topp muy lu wir fii ma toog di wax fa gën a sore ci penku bi fa gën a sore ci sowu fa gën a sore ci gànnaar ak Saalum kenn mënu koo dindi da wax li ma wax rek mënoo ko nga wax la neen waaye doo indi xam-xam gën a leer bii man yëm ma ci jàng ci koy téer damay topp weer wi sama dund gépp weer wi laa ko jox waxtu yëpp guddi bëccëg maa ngi ci weer wi dix neuf cent quatre ba fii ma toog maa ngi saytu weer wi di ko saytu saa bopp nag yëm ci téere yi noonu de di topp tamit commission yi ne ci adduna bi yëpp commission par commission lay lay top amul benn commission bu may raw ci aduna commission wéré amul benn calendrier ci aduna bu mo dul lire calendrier calendrier yépp lay lire aduna bépp seen calendrier yépp dama koy top parce que mbir bu la ñoré da ci né amul benn calendrier bu fi nekk ci aduna bi bu ma xamul calendrier réew yépp top na ko benn par benn ba ci calendrier bi nga xam aduna bépp ko bokk muy calendrier jant bi ñu tudde naan juddu yonte alayhi salaam mooy fukki weer ak ñaar yi ñuy wax janvier février mars av euh, avril mai juin boobu mooy calendrier nga xam ñëpp ko bokk soo dajalee calendrier yëpp nag yëpp am njuumte njuumte boo xam ne kenn mënu ko régler tey benn borom xam-xam yëgut ci mën na régler njuumte bi am ci calendrier yi benn calendrier rek moo amul njuumte muy calendrier weer wi saa bu juwaloo rek nit ñi ko ci def propagande yi yi dégg nga kuréel yi ñoo ci dugal ñoo andi seeni mbir ak ay machine mais suñ ko bàyyee ci ni ko yàlla digle woon ngeen diglu ko dee leen ko gis ak bët tambali mënul leen ko ngeen matal fanweer njuumte du am weer yi dafa mat sëkk ñu xam juroom ñet état bi muy jaar xam ñaar fukki waccu way ak juroom ñet muy ñaar fukki man sele ak juroom ñet yi mi jaar yépp ñu xam ko sele bu dama fe fanan gën guddi mën mënta réer ñu xam fi mi tambali xam fi mi yam weer yi gis nga bu ci ñu ci landa di ñëw leru Chine leer jaar Inde bu toll ci digg midi lay fenk fi Sénégal muy weeru muy jant bi ba ni muy accès Arabie Saoudite ba ni muy accès Mali ba ni muy ñëwee Sénégal jant bi rek saa boo saa bu fenkee Sénégal fii suba nga xëy gis jant bi fenk xamal ne jant bi ma nga toll ci digg boo nekkoon jant baa ngi ci digg bu jant bi toll fii ci Sénégal ci onze heures fii nga di ko seen ci asamaan si ma ngay door a fenk Amérique noonu la yàlla si di suuf si loolu nekkatul lu ñu lu ñu xam la calendrier yëpp am jumte te kenn mënu koo régler muy calendrier jant bi muy calendrier grégorien yi muy calendrier euh, captuyoon yi mooy xaptuyoon euh, yi muy calendrier yi ma fi yim yëpp nga xam ay calendrier lañ yëpp yépp am njuumte calendrier jant gi dafa am njuumte calendrier amazighi yi dafa am njuumte calendrier romain yi dafa am njuumte ndax calendrier euh, jant bi ñoom ñooy tambali deux mille mooy mooy mooy deux mille vingt quatre dafa am njuumte bi nga xam ne ñëpp ko bokk yeneen calendrier yu spécial yi nga xam ne réew mu a am na sa calendrier bopp wala gox bu ne am na sa calendrier yooyu yëpp am njuumte muy amazighi yi nga xam ne moom ñoom ñoo toll ci deux mille neuf cent soixante quatorze année romain ñoo toll ci deux mille sept cent soixante dix sept arménie yi ñoo toll ci mille quatre cent soixante treize syriane yi ñoo toll ci six mille sept cent soixante quatorze bangaliyoon yi mille quatre cent trente et un yëpp am jumb boosi yi ñoo toll ci deux mille cinq cent soixante huit dafa am jumb bornéyoon yi mille trois cent yi sax am nañ seen calendrier bopp boo xam ne ñu ngi koy daté ci mille sept cent vingt xablal miiraat dafa am njuumte xab tiyoon yi laa waxoon mooy sànq ndax ñoom ñu ngi ci mille sept cent quarante et un ci at ci ren ci weeru basans teel weeri fanweeri fan di mille sept cent quarante sept ci calendrier misrono yu njëkk yi ñu ngi tudd xab tiyoon yi dafa am njuumte waaw xeberu yi dafa am njuumte ñoom ñu ngi ci cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre dafa am njuumte éthiopiens yi ñoom ñu ngi ci deux mille dafa am jumte entre diggante 2017 2006 2016 2017 ñoom seen casier foofu toll dafa am jumte waaw yëpp am jumte bàyyi karam 2014 dafa am jumte waaw xooloo Chine 1224 dafa am jumte Igibo dañoo am jumte ñoom tamit 1024 dañoo am jumte calendrier sapon yi dafa am njuumte maa gisee calendrier yooyu seen njuumte kenn mënu mënu la wax la des bu dee calendrier julien yoon yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci euh, sax euh, nu mu tuddati euh, seen calendrier treize jours la rawante ak jant bi ñoom tamit ci ren nga xam ne fukki fan lañ rawante dañoo am njuumte yëpp Thaïlande yoon yi dañoo am njuumte deux mille cinq cent soixante-sept dañoo am njuumte gis nga calendrier boo ko doon topp di ko lim di ko lim ba calendrier yi jeex yépp am njuumte te nag fii ma fi ñu toog tey ak fi xam-xam yegg ak fi adduna ak ci avancement njuumte yi am ci calendrier yooyu kenn mënu ko réparé kenn benn calendrier seul unique mu amul njuumte muy calendrier weer lu ko waral yàlla da mu dafa natt suuf si natt jant bi jël weer yi dugal ko seen diggante natt ko muy calendrier benn calendrier la yàlla saxal moom la bind suuf si bind jant bi bind yi ëpp jant bi fuuf bind deux cent milliards galaxies yi am bind trous yi nga xam ne quarante trillions nañ ñeent fukki junniy milliards euh, euh, euh, trous yàlla mi bind biddiw yëpp bind planète yëpp bind weer yi yëpp bind niyax yi yëpp bind musanabaat yëpp bind lépp lu fi nekk benn calendrier la la saxal ne mooy calendrier bu wér daal ne bàyyi leen calendrier yi ci des ndax inna innama nasiyu siyaadatun fil kufri képp ku sukkandiku ci beneen calendrier ci kufru boobu la mooy sa calendrier wérul dangaa fexe ba tëral ko mu ne nag benn calendrier moo am mooy inna xiddata suwar indala indala isna asara sana fii kitaabillahi ila maxra samawati wal ardi minha arbatu hurum zalika dinul qayyim fala tasma wa qatilul mushrikina kaafatan kama yuqatilunakum kaafatan wahlamu anna allaha ma'al muttaqina dum ci rek innama nasiyu siyadatun fil kufri yadul bihi alladhina kafaru yuhiluna aaman wa yuharimuna haaman li yuwaatu hillata ma harama allah di dagg weer yi di dagg semaine yi di dagg at rek lañ fi nekkee jël ay ay ay machine ba cee sukkandiku ci ci tàmbalik weer ak jeexal weer njuumte da ngay xalangu yasaluunaka xanil ahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi weer wii mooy seen nattukaay yéen nit ñi du julli ñi de nit ñëpp la yàlla wax mawaaqiitu linnaasi qul hiya hiya boobu quinze la quinze multiplié quatre juróom benn fukk la muy juróom benn fukk seconde yi juróom benn fukk multiplié juróom benn muy minute minute multiplié juróom benn fukk muy waxtu hiya quinze boobu multiplier 4 60 boko ko multiplier 24 mu jox la 360 li yi nga xamne mom la suuf si doon lignes yi ci suuf si yépp d'accord nañ ci né 360 lignes la 15 multiplier 24 muy 360 lignes yi ba tey te 15 multiplier 4 moy seconde yi juróom-benn fuk seconde yi di di ben minute ben minute multiplier soixante muy waxtu waxtu multiplier euh, multiplier vingt quatre muy bis bi quinze multiplier vingt quatre muy trois cent soixante lignes yi te diggante ligne bu ne buum bu ne ak moroom ma quinze la kon yàlla li mu wax dara du ci dey <clears throat> mooy seen nattukaay yéen nit ñi wala bi suwa fii kax fihim lu mu ca teg saa su mi atu chine wasdaadoo tis xam kalendier weeru leex de waxul jant kon benn calendrier moo fi am bu jub amul benn njuumte te bilaa yëmi li du am njuumte baneen calendrier boo fi mën a indi njuumte yi kese la dañ ko bàyyi noonu def su ko dikkuti ñu ki tey calendrier jant ñu yor mu ñuy tuddee atum mi njuumte kese ci nekk ndax bu fekkonte ne bëgg am njuumte dañ koy tàmbalee at mi ca ndax bu njëkk le 21 mars la woon la at mi daan tàmbali muy benn fan ci at mi dañ koo jële foofu tubaab bi ñu tuddee juillet muy yulio moom moo ko jëlee foofu indi ko 31 euh, sambo ñu xëy suba di janvier moo ko indi foofu ñëpp topp ko ci xam leen milaat lii rek la siyaare ñëpp ñaan ñëpp jàmm ak tawfiix di ko sàkku ci yéen in uriidu illal islaah mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah maa ngi yeesal bu baax sama taalibe ak sama cofeel ci Mawlana Abdullahi wa Xaadimi Rasuulihi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu